xaw na dal mhm. euh, xel yaa ngi dellu mhm. euh, gis naa fan yi tamit euh, li manqué woon Sénégal peut-être ñu ngi koy commencer amaat mhm. mooy ñu dellu si ci vrai discours politique li nga xam ne nii mooy politique parce que euh, Sénégal dañoo génn ci jamono boo xam ne nii presque ñaari at a ngi nii wala ñetti at Euh, bi ñu jógee ci élection présidentielle yi c'est vrai que am nañ benn temps de répit un an boo xam ne ni ñu ngi woon ci dialogue national bi euh, mu doon préparer élection locale ak élection législative ñu génn ci loolu mhm. mais depuis quelque temps gis nañ xulu xeex saaga xaste euh, daanaka politique jóge na fi discours violent discours boo xam ne nii mel ni nit ñi ay ennemis lañ ay noon lañ mhm. te politique fondamentalement nit ñi duñu ay noonu. politique confrontation ay vision la man nii laa gisee yoon bii laa gis ni mooy yoon bi gën a gaaw pour jëmale réew mi kanam kii ne beneen yoon laa gisee loolu nag weccante xalaat la euh, warul génn ci cadre boobu euh, bu ñu gisee nag ay discours boo xam ne nii euh, saaga la xaste la lépp tegu ci doole wala rayante wala ay nit bakkan di rot loolu en tout cas Euh, ñun si suñu gis-gisu politique. Mhm. loolu du yoon du dëgg méngoowul ak dara te loolu gis nañ ko fi nag. ci mhm. jamono yële mais loolu acteur yëpp ñoo war a poser question. Mhm. acteurs yëpp ñoo war a euh, remettre en en question fondamentalement pour que ñu revenir ci li nga xam ne nii mooy fondamentaux politique loolu nag jàpp naa ni. Euh, jamono yi ñu génn ci koor gi ci korité bi président de la république nga xam ne nii moom mooy garant de la paix et de la stabilité du mm-hmm. pays sécurité sénégalais yi ci loxoom la nekk stabilité Sénégal ci loxoom la nekk mm-hmm. moom la ko sénégalais yi dégg euh, am na jéego yu am solo yoo xam ne nii def na ko ci pour woote euh, waxtaan bu yaatu ak ñëpp mm-hmm. d'abord politique bi parce que ñëpp ci politique bi la ñuy focaliser wu mais dialogue bi avec toutes les forces vives la loolu il faut que mu leer foo mu nekk syndicat yi patronat bi mhm. parce que ñoo ñoo yor xëy mi mhm. euh, war a fay employé yi mhm. euh, syndicat yi aussi foo ñu waxtaan ak ci ci àq ak yeleefu liggéeykat yi wante tamit waxtaan pàcc bu am solo ci politique bi nga xam ne nii dañoo jëm ci élection présidentielle 2024 mu nekk élection yu am solo ci réew mi te élection yooyu buñ ci jëmee élection yu yu nekk dafa baax ñi ko séq ñu toog bokk table waxtaan définir règle yi définir règle yoo xam ne nii moom la ñuy demee ci élection yi te loolu la leen président woo euh, ñu ngi doon kaas lu bari ci ne euh, parenage bi problème la mhm. donc président ubbil na leen bunt pour ñu ñëw toog waxtaanee ci régle de jeu yi nga xam ne nii ñëpp dañ ciy ànd ñu tënk ko dugal ko ci charte réew mi mun a dem ci élection ci jàmm ci salaam ku gagné continuer euh, yor sa mais bu nga bëggee dialogue boobu euh, Mansour bala ñuy ñëw foofu ñu jaale léegi léegi huit heures moo bootu ci euh, fanweeri simili